kon ki nga xam ne mooy al mumassilu shar'i lil jamaa mooy ki nga xam ne moo représenté mbooloo mi ci représentation boo xam ne nekk ci yoon la jaar bu dee ci l'islam moom kii représenté mbooloo mi critères yi muy am nekk njiit nekk ci kanamu mbooloo mi borom bi dagaase na critères yooyu du ab juddu du ay at du woote ci sa bopp loolu sax koo def dootoo ko mérité li ñuy def léegi di campagne kenn ku nekk di tëskee sa bopp maa man nangam daan boo xasee ne maa maa man nangam rek wala maay nangam rek yow bokkatu waaw ndax iblis ba ba mu ne ana xayrun minhu aadama maa kun ana ana moom boo ko waxee rek bokkatu fala tusakku anfusakum huwa aalamu bi man ittaqa waaye ñaar mooy tax a jiitu ci l'islam mooy al ilmu wal yaqin وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون borom bi ne def naa ci seen biir jaal na minhum ñi nga xam ne ñu jub tànnal naa ci seen biir ay njiit xilaafa gi ñi taxawee xilaafa gi te mooy ñi nekk ci li borom bi tabaraka wa taala digle dañuy amaat nag lu jiitu ci ñoom jaal naa minhum minhum aimma ay njiit luy seen mission yahduuna bi amrina seen lettre de service boo jiitoo ci diine liy sa programme mooy yahduuna da ngay teg nit ñi ci njub waaye du ci sa xalaat de bi amrina ci ndigalul yàlla ci ngay tege nit ñi ci njub kañ lañ leen ko def nag qualification yu yan lañ am ba tax yàlla def leen jiit mu ne lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun ba amee sabr muñ ba mën a muñ saxawaat yi ñu am yaqin ba génn ci subuhaat yi parce que problème bu àdduna ñaar yooyu rek la saxawaat subuhaat waaw doomu aadama bu debul loolu la tee subuhaat mooy yu leerul yi li nga jàpp ne nii la te du nii fi nañu bari ci diine ci subuhaat lañu nekk liñ jàpp ne mooy diine du diine ay subuhaat la leerut ñenn ñi dem ba xam ne sax lii leer da mais saxawa téye leen bànneex téye leen mënuñoo dem waaw ñaar yooyu rek moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam liggéeyam génn lu woon ñaar yooyu faj sahawaat faj subuhaat bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ko wax mission yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom bi mu koy wax laqad manna allahu ala almuminin id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim koo koy faj sahawaat yi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata koo koy faj subuhaat yi waaw yuzakkihim mooy dindi sahawaat yuallimuhum alkitaba wal hikmata mooy dindi subuhaat léegi jeex na mission bi jeex na ku jaarul foofu rek wa in kaanoo min xablu nag njëkk ngay def lii nag la fii dalaalin mubin mu njàngum diine moom loolu rek la yetloo ale bi ñu njëkk a tàmbalee mooy yetloo ale jàngal la alquran boo gisee ñuy tàmbalee ci tahfiisul quran mooy yetloo alayhim ayat yi foofu moom tilaawa bi rek la si tilaawa bi mokkee nag yu sakkihim bi mooy yaa ngi ko doon jàng mais ñi ngi la ci doon yar buñ ca noppee doogi ñëw ci wa yuallimuhumul kitaaba wal xikma jàngal la alquran jooju lu wax jàngal la sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam di koy firi fekk na jët loo amoon na yaa ngi benn mokkal nga ko wala boo ko mokkalu ci moom boo ko tiimee mën nga ko jàng jàng mu rafet yii nag la borom bi ne ku ci jaaru yaa ngi ci dalaalul mubin wa in kaanu min qablu min qablu min qablu njëkk ñuy def yëgloo yusakkihim yuallimuhumul kitaaba wal hikma njëkk ñuy def loolu la fii dalaalin mubin kon ku ko deful ba tey yaa ngi ci la fii dalaalin mubin kon njiit ci diine kay jiite nit ñi te waxuñu rek moom njiitul diine nun niñ jéggi diine fii rek de kay jiite diine jëm mooy kay jiite julli yaag yooyu déedéet mais benn njiit moom moo ñi ci def ay liggéeykat lañu maanaam fi mu ne ñii jàng science ñi jàng médecine ñi jàng ñooñu waruñoo jiite ñooñu ay ouvrier lañu ay liggéey kenn lañu ay fonctionnaire lañ dañ leen di liggéeyloo ñi war a jiite mooy ñi xam diine ñooñu ñoo xam direction bi fu mu jëm parce que dañ du dañoo dëkkul fii dong xam nga fekkoon ne mbir yi seere àdduna dong la kon ñooñu mën nañoo jiite mais seere àdduna ji baax mais àdduna ji wut ci yóbbal la pour jëm àllaaxira àllaaxira nag ke ko mën a xam mooy ku xam diine direction bi jëm àllaaxira di fa mayee jàmm te buñ seetee pourcentage su dundu àllaaxira ci dundu adduna lu néew la wa ma mataawul xayaati dunia fi l illa xalil ñu mel ne barab boo xam ne dañ def dañ ne da nga fa am téeméeri at waaye téeméeri at yooyu am na ci barab boo xam ne juróom-ñeent fukk yaat juróom-ñeent barab sàngam nga koy am benn at bi ngay am fii nga jàpp ne dundub doomu adama yëpp doon téeméeri at te nga gën a fan fii ci àdduna benn at la fi am juróom-ñeent fukk at ak juróom-ñeent yépp àllaaxira la jëm kooku nag bu ñu koy tëralal programme yamale ko ci programme benn at bàyyi programme bi am bu juróom-ñeent fukki at ya ak juróom-ñeent <laughs> ñooñu mënuñu tëral programme te ñii fi nekk yépp ci tëral programme du tëralaale boobu de duñu ñu tëral boobu waaw boobu wala barab boo xam dañoo da nga fiy yendu da nga am 30 minutes mais am na foo xam ne li des ci bëccëg bi yëpp foofa nga koy jeexale ji moom mu tëral la programme bu 30 minutes rek boo xam ne sax du mat kooku kon moo tax njiit borom bi ne ñiy jiitu mooy ñi boole ñaar yii ak sabru muñ nañ ba muñ saxawaat yi not dañ seen bakkan ba seen bakkan du leen dugal ci lu yàlla tere kon am nañ sabr waaye am nañ yaqin muy xam-xam bu leer ba kenn mënu leen dugal ci lënt lënt xam-xam dafa war a egg ci yaqin xam-xam dafa amu sant boo ne xam naa dara dañuy laaj noo ko xamee ndax egg na ci yaqin ndax waxamu des na ko tuddee xam defe defe xam ngaa nangam ñu gën la nga ne dama ko defee rek dama ko defe woon rek defe naa nangam ama li jëla net naan defe naa diw ñëw na defe naa boobu xam-xam kooku loolu kaaru xam-xam lañ koy tuddee wala maa ngi sikki sàkka daal ba xam diw ñëw na am ñëwut kooku mooy ab sàkk kooku dëni xam-xam lañ ko tuddee xam bu doon ñu mën a bu ñu ko xaajee ca digg ba xam la genn wàll gi ump la gisi dal bi ci tegu mooy zann njort kooku trois quarts yi dëgg la trois quarts yi dëgg la mais def na benn quart bu quatre quarts yépp matee nag looloo yàqin la borom ne kalla law taalamuuna ilmal yaqin ilmal yaqin xam nga am nañ ilm mais ñi ilmal zann lañ am ñi ilmal sakk lañ am ñi ilmal wahbu lañ am waaye borom ne su ngeen amoon ilmal yaqin kon la tarawunna al jahim man ngeen nekk fii mel ne yéen a ngi gis safara waaye su ngeen ko amul nag suma la tarawunnaha nag aynal yaqin fii moom ilmal yaqin lañ la fi laaj yowmal xiyaam nag moom aynal yaqin ngay am da nga ciy teg sa bët mu leer la ne sa sawara ngi nii kenn mënu ko wet nii nii di tàkk waaw moo tax yéefar yi ko doon weddi buñ ne leen daaf ci safara ne leen abba sihrun haada ndax am antum la tubsirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamalu kon moo tax nit li ñu ko jox ci responsabilité mu féete woo ko ci moomeeli adduna yi su demee ba bëgg a yàqal mbooloo ma dañ koy jëlaat ci moom léeg-léeg moo tax nga gis koo xam ne da ngay dëkk foo xam ne ñu ne fii kat aw yoon dafay war a jaar dañ koy jël autorité bi daf koy jël day jël sa kër googu donte dana la dàmp nag loo mën a dimbali ko waat ba am kër waaye doo ay sa fii maa ko moom rek fa force kenn du ko jël déedéet bu ko mbooloo bépp soxlaa mbooloo mi la ko dénkoon bu ko mbooloo mi soxlaa dañ koy jëlaat moo tax yonente bi digle woon nañu buddi ak tàndarma boo xam ne samuratum nu jundub moo ko moomal waaye tàndarma bi dafa doonoon bala caa man a dem day am kër ku muy jaar yoon wa ñuy jëm day jaar ci kër benn waay boo xam ne daal waa jàng tey lor jamono bu nekk mu romb ko cib ëttam ak ci yépp ne daa jëm ci toolam ah yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sa tàndarma googu daal bay boo nga buddi ko ndax da daal yaa ngi ciy lor keneen waaye ba mu ca yeexee defu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo buddilu daf ko dindi wala xamal ne kon individu bi su fekkee doxiinam dafay lor mbooloo mi loola bu boobaa dañu koy jubbanti ca loola bu doon njariñ la lu muy jariñoo tey lori mbooloo ma ne ca itam ah, dañuy fanq lor jooju moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam te xaayida laa darara wala dirara fil islam lor bu loru waaye bul lore itam nag ndax li nga am yaag mbooloo ma ko teg am maanaam xilaafa gi ni mu ëmbee lépp loo xam ne lu ne ci kaw suuf la bu ëmbaale sax wàllu gouverner muy wàllu atte bi atte bi dugg na ci xilaafa gi boo gisee régime ci lislaam bi ñuy doxalee adduna xilaafa lay tudd xilaafa gi tekkiwul ne kañ fa jógee la wuutu de déedéet xilaafa rek la lay bi tudd mooy xilaafatullahi fil ard la waaw xilaafa xilaafa gi mu yàlla teg ci kaw su muy amaanaam boobu ki nekk xalifa bi buñ amoon tey régime l'islam ka fa toog ñu tuddee ko xalifa tekkiwul ñu naan moom xalifa kan la comme fi wuutu déedéet yàlla moo ko fi teg ndigalul yàlla la fi toogee moo tax gis mu ne yaa daawud inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bil xaq nga kon yow def naa la xalifa xalifa boobu pouvoir la atte la doxalin la ci kaw suuf gouverne la atteel diggante nit ñi ci dëgg wala tattabihi l hawa fa yudillaka an sabilillah de mel ne pouvoir yii dox na ñoom hawa la ñuy topp parce que mooy laaj majorité bi lu ñu wax rek loolu mooy laaj nañu seen xawaa seen bëgg-bëgg lu geen bëgg ku ngeen faral lu ngeen gisa nangam ah wala moo tax borom bi teg te wala tattabi xawaa yow seetal li xaq seetal liy dëgg doonte ña ca ànd ñu néew la itam doxal ko parce que léeg-léeg ña ca ànd ñaari kuréel lañ ku xamul dëgg bu dëgg doxee mu xam ko ak ci bañ dëgg kooku nag bañam dëgg googu wër tax ñu topp ko ci bañ a doxal dëgg te contre dëgg moom ñaar yooyu rek la kenn ki daa xamul dëgg kenn ki daa bañ dëgg xam na ko waaye dëgg dafa metti bëggu ki xamul dëgg nañ doxal dëgg bu ko gisee ne ah man kat ànduma ci woon waaye lii ngeen doxal kat moom jublu am naa ki ko bañ nag kooku moom dañ ko war a doxal ci kawam par force moo tax kon xilaafa ci lislaam moom ci dëgg rek lay dox moo tax borom bi ne huwa ansaakum min al ardi wastaamarakum fiha ñu boroom dafa responsabilité doomu aadama doxal adduna bi doxal ko ci wàllu imaar muy wàllu dundal ko kër yéeg mbedd yéeg yoon yeeg matériel yi fi nekk ak oto yeeg avion yeeg yooyu yëpp doomu aadama def ko ngir yombal aw nekki yooyu ñu objectif bi de yëpp yombal nekkin la yooyu yëpp yombal nekkin la waaye ndax toujours may wax ñaar nit war na koy xam ne boo nekkee ci barab lala fay taxa mën a ne ak lala fa taxa ne fii lu ma fi taxa ne nangam waaye luy tax ma man fee ne nangam waaw dem tool war na laaj waaw man lu ma indi tool bay waaye luy nag ma mën a nekk tool am ndox mu may naan ak ñam mu may lekk bu ma maree naan bu fekkee bu ma maree dem naa ni ca kër ga du ma liggéey dara bu añ jotee ma dem yi du ma liggéey dara kon naa am ndox teg ko ci taatu garab bi bu ma bayee ba sonn dem naan bu añ jotee ñu andil ma añ bu ma wàccee bëccëg dem ci kër garab gi noppalu bu ngoonee ma gontal su ko defee liggéey bi gën a dox waaye nag loolu mooy liy tax mu mën a nekk ci tool yi waaye loolu taxu ko ne ci tool yi kon adduna bi dañuy lajoo waaw adduna luy tax nu man fee nekk mooy nga liggéey ba am looy lekk am kër goo dëkk am yére yooyu sol boo feebaree mën a faju loolu mooy tax nga man fee ne waaye lu la fi taxane nag waaw la laajaat laaj boobu mooy nag li tax ñu indi la fi muy jaamu suñu borom tabaraka wa taala wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudu boo daan jaamu ci mafhumam bu yaatu boobu boo ko déggee ci mafhumul a xam na yow da fee toog missionnaire nga mission nga fi tooge loo def rek ci jaamu gi la dugg ndax doo def lu la yàlla digalul même tool bi boo koy bay ci ndigalul yàlla nga koy bay waaw yàlla la digal nga bay ko ngir nga am loo lekk def rek moo tax bu yéene ja sellee day nekk ak jaamu kon illa li yaabudoon jooju loolu nga koy mën a déggee wa maa xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudoon bu fekkee yeneen yi ci des boo nekkee ca sam atelier loolu du ibaada boo nekkee ci bureau ba loolu du jaamu boo nekkee ca tool ya loolu du jaamu dem ne woon illa li yaabudoon lu may ngir jaamu dong moo tax ñu andi ngay nekk leneen lu dul jaamu ah kon yow nekkatoo ci liñ la tëddee woon kon loo def rek jaamu la war a doon sa lépp jaamu yàlla la wara doon mooy yaa ngi koy def ci ni la ko borom bi tabaraka ko taala digale li feeg mbir mi yaa ngi koy def ci lettre de mission bi ñu la jox moom ngay exécuté jamono bu nekk loolu yàlla dala ciy fay ak jaamu la ndax da nga ci am ngërëma bu boobaa boo génne ca jàkka ja dugg ci atelier bi foo mën a dugg rek ba tey yaa ngi ci illaa li yaabudu jaamu dong ci nga fi nekk mais doo jàppee ne am na benn moment boo xam ne lii ngay def moom sa coobare la dul ibaada ndax bu dul ibaada mooy jógeetul ci yàlla ci yow la jóge sa bànneex ngay doxee bu booba bépp fonctionnaire boo xam ne teg nañ la fenn ngay doxee loo xam ne léegi sa coobare la cest à boo xam ne kenn joxu la bi yow yaa ko defal sa bopp léegi yaa ngi wàcc yoon loo def rek dafa war a correspondre ak liñ la fi tegi amma xilaafa gi nag muy wuutu googu liy tax mbooloo mi mën koo doxal naaj bi tàngul ci mbooloo mi waaw <laughs> ah. waaw ah. am na ay piliers yoo xam ne mënta ñàkk ngir mbooloo mi mën a taxawee nag xilaafa gi ànd ko taxawe parce que mbooloo mi du xilaafa gi du mbirum kenn ñëpp a koy ànd la nga xam ne mbooloo ko war a def ñu délégué kenn mu di ko def ci turu mbooloo mi mooy ki ñuy jiital mu nekk njiit waaw ah. moo xam njiit lu mag la la wala njiit yu ndaw ya muy gouverneur ya yeneen kilifa yi ñu teg ca suuf ak ñooñu ñëpp mbooloo ma la ñu wuutu ca la ñuy def di ko def nag ci digalul suñu borom tabaraka wa taala la ca mooy mbooloo moomu nag nañu bokk fu ñu askanu mooy ki leen fi teg ñoom ñëpp nañu défendre ci ki leen fi teg du jàggee ne kii gouverneur rek xalifa bu mag bi ki ñuy jiital kooku doo koy xalifa kenn ku ne xalifa nga ca la nga nekk parce que boo ci yor lu mu néew néew néew ab xalifa nga ci ndax toogaloo ba kala fa teg mais yàlla nga fi toogal dëgg nag ci moom la jaare nag waaye nag yàlla nga fa toogal loolu régime bu ñu déggee noonu adduna bi bu ñu déggee woon régime bi noonu léppay jub kon ñoom ñëpp dañuy bokk fu ñu askanu ci benn buur xam ne moo leen moom moom la war a jaamu ci moom la war a jëlee ay ndigal loolu mooy chiaaru laa ilaha illa allah laa ilaha amul benn pouvoir amul kenn ku ñu war a jaamu illa allah dégagé nañ lépp yàlla rek a fi ne même yow mi jiite nit ñi doo seen yàlla doo seen buur ak jaamu yàlla nga comme ñoom li la yàlla digal moom la digal nit ñi da nga leen koy jiite rek da nga leen koy jiite mu mel ilimaan bi jiite julli rek taxul mu moom julli gi ne nu ma neex laay jullee déedéet dafa jiite nit ñi julli gi waaye moomul julli gi saa bu bëggee wàcc ni war a jullee rek nit ñi bàyyi ko lépp ci àdduna nag noonu la mel ku ñu jiital itam nag fokk ñuy jiital kenn nag ndax organisation la àdduna loolu la laaj fokk njiit am waaye njiit li itam nag lay tax nit ñi man koo jiital day tax ñu day fekk ñu xam ñoom itam li mu war a def lu mu mën a ilimaan yi ñi ci gannaaw ñëpp man mën ilimaan ñëpp a mën a julli moo tax roy la tudd mais fekkoon ne mënuñoo julli ko dañ koy toppadoo toppandoo mooy koo xam ne lu mu def nga def roy nag mooy koo xam ne da ngeen a ànd di def lii dëgg mais su bëggee bàyyi lii dëgg yow nga taxaw nga bàyyi liman bi bu bëggoon a sujjóot ñëpp di sujjóot yaakaar naa mbooloo mépp ay toog duñu sujjóot ñi dañ ne ko subhanallah toog fi ñu ne ko subhanallah sujjóot ñëpp di sujjóot su fekkoon dañ koy toppandoo rek bu sujjóotee juróomi sujjóot toog ñu sujjóot juróomi sujjóot waaw toppandoo rek da koy gën a waral mooy ñaare ku xamut wala ko topp bànneex ne kii daal sax na ma naw naa ko naw koo xam ne julli sax moom ñaari sujjóot laa ci xamal waaye kii daal ni mel ak baati ma xam-xamama bu ñu jotee juróomi sujjóot rek daa walaa ba waaw ñu bari moom la ñuy demee moom daal ba joom comme sujjóot la juróomi sujjóot rek sujjóot la juróomi sujjóot waaw ndax daal moom daal fi mu toll nag ni mu mel daal am na daal fu mu ko teg foofu la ñuy wax daal am na daal fu mu ko teg ah doonte doonte xamuñu fu mu ko teg loolu nag boobaa topp bànneex la ñu ne topp bànneex léegi toppatuñu dëgg moo tax gis nga yusuf alayhi salaam ñëpp dugandoon ca kaso ba bañ ko laajee seeni soxla ne ko mu firil leen seen gént tàmbaliwul ci firil leen gént gi lu ëpp solo gént gi la leen laaj ne leen yaa saahibay sijni a arbaabun mutafarriquuna xayrun amillaahu alwaahidul qahaar yéen gént ngeen ma laaj waaye bala ngeen egsi ci gént moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne léegi-léeg bu ko nit laajee tem xam leneen lu ëppal importance kii koy laaj bu mu ko waxagoon li mu ko laaj na ko wax leneen la ëpp solo doog a egsi nag ci li mu koy laaj bu ko tere waaye bu jàggee ni borom xam boo xam ne lu leen nit laaj raaj nga tontu ci kon day mel ni nit ki lay utiliser te yow yaa xam moom xamul su fekkee moo lay jiite yow dana la mujj dugal ci wax sax lu amul njëriñ moo tax kon su waxee yow yaa war a xool moom lim aajowoo nga wax ko ca mu ne leen li ngeen di jaamu in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa aba'ukum mooy yii fi xew rek régime yii xew yépp ñu naan socialisme communisme libéralisme yooyu yëpp asmaun sammaytumuha antum wa aba'ukum maa anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa zanna seen programme yi ñu tey tëral yépp njort la wa ma tahwa al anfus ak lañ bëgg te wala qad jaahum min rabbihim al huda amoon nañ programme bu jógee ci yàlla de pourtant ah bala nga fa nekk naan man lii laa tëral ak yoonu yokkuteeg yoonu jëm feeg yoonu lii wala xam ne jaahum min rabbihim alhuda te nee na woon fa imma yatiyannakum minni hudan fa man tabiha hudaya fala xawfun alayhim wala hum yaxsabun gis nga mu ne in yattabi'una illa zanna li ñuy tëral njort la dara leeru leen ba xam dara mën a amam leen dara leeru leen te wa ma tahwal anfus la leen ca arrangé neex ci seen bakkan xëy na di leen fa yàggal loola la ñuy tëral te borom bi ne pourtant loolu mënu leen cee bañ a fekk lambatu boobu nag dañuy tërali programme jëli expert ñuy tëju ci néeg ci bind ko xool économique bi nu mu war a doxee na sécurité bi waaye programme baa ngi fi wala xad jaahum min rabbihimul huda ah njub nga ndikoo ne bàyyi ko suñ borom tabaraka wa taala yi ngeen di wax yépp asmaun sàmmaytumuha ay tur dong la dara nekkul ca biir maa anzala allahu biha min sultaan yàlla wàcce wu ci benn lay amoo ci benn dalil bu mën a dellu ci yàlla in yattabi'una illa zann wa ma tahwa al-anfus ñaareel itam xilaafa gi mbooloo mi man ko taxawe mooy ñu jëmmal ruuxu al uxuwa al amma ñu yëg ne ñoom ñëpp ay mbokk lañ ñenn bañ a jël seen bopp bëgg teg ci kaw ñu ca def ñu yëg ne ñoom ñëpp ay mbokk lañ ñoom ñëpp ay nawle lañ ñoom ñëpp ay jaam lañ inna alladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ñi ngeen fii woo koo fi yaakaar di ko teg ci place bu kawe bàyyi yàlla sam nawle borom bi ne la jaam la comme yow ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin nee na soo weddee ne yorul ci ciri yàlla yi dara amal soxla woo ko ci rek sa soxla yi adduna yu teew yi alaxira bi ñëwagul kay la gaa yi nagoo dige waaye adduna moom duñ ko dige ko xam na daal loolu lijjanti bu tagee ci àdduna rek woo ma doo ko fi dénk de ah <laughs> doo ko dénk parce que yi tag ci àdduna si dafa bari pour que ku ne ma ah man kat maa ngi fii lijjanti sama mbir yi mën ta dem ñu ngi may bëgg a taj kaso te yaa ne woon naa la wax da ma ne déet man alaxira laa la wax waaw moo tax borom ne fad'uhum falyastajibuu lakum waaye gisee yowmal xiyam wa yowma yaqulu naadu yowmal xiyam bu ñëpp taxawee suñu borom day wax ñi doon bokkaale nee na naadu shurakaa'iyal lazina za'amtum ñi ngeen ne woon maa ngi ñoom bokk mbir mi dem leen woyi leen danañ leen woo de ko de da nga xam sa waay ji fa daaw waaye falam yastajibu la ku ne da nga jaar ci turu ka nga doon bokkaale yàlla bi nga def ci sa xol teg ko place yàlla wala nga boole koog yàlla bu yobal xeetu yàlla naa la demal ko nu bokk àtte ñu kenn ku dégg tur ku ne leen diw diw diw diw ku nekk woo sa mu ne xeeñ ca suuf fa daaw hom falam yastajibu la kenn du ñu ne kon doomu aadama itam pour ñu mën a taxawee xilaafa gi fokk ñu nangu lool gën gëm ne gënante amutu du ci làkk wooy làkk bu ci der boo yor du ci barab boo dëkk même ci xam-xam boo am sax parce que yor ngëneel taxul nga gën mu ngi mel ne ku yenu ndab loo xam ne ñama ci ne mais taxul mu gën a rek ñu yenu da ak lekk na moo tax même borom xam-xam bi yanu na ndax yor na ngëneel mais est-ce que gën na waaw yanu ndax loo xam ne ñama ci ne taxul nga gën ñu yenuwul ndax ndax ña yenuwul ndax ab xiif lañ nekk yow itam sax da boole xiif ak yan bu diis sax yow nag boole ci far ñoom nag xiif nañu waaye yenuwuñ dara waaw kon gënoo leen ngaa gën kay mooy da ngay tàgg ndab li lekk boo lekkee ba tuur nag ña lekkul moom ah yàlla ëpp doole yàlla ëpp jàmm moo tax kon ngëneel ci suñu borom te it xam-xam ba nga cay lekk lay tekki na rees na rees na ci jàmb yaa ngi koy xamee fa suñu borom tabaraka wa taala bul ne ma am xam-xam rek ma ma gën ñi ci des déedéet yaa ngi jëfee sa xam-xam mais est ce xam nga yàlla nangu na koom de bala koo xam a ci sa kanamu borom tabaraka wa taala moo tax même ki am xam-xam di ko jëfe du tax sax mu ne maa gën kenn ndax lekk na waaye xamul lim lekk rees dana reesam de ndax rees nga mooy yàlla nangu ko reet ga mooy yàlla nangu comme loolu xamu ko nag moo tax doomu aadama amul lenn lu muy war a mën a sukkandiku ba ne gëne ne ko borom loolu nag mooy tax ñu mën a ànd taxawee xilaafa bi amma dimension yi nga xam ne nag moom la xilaafa gi am dafay sukkandiku ci ñaar bu jëkk bi mbooloo mi dafay tënku ci yëg ne moom sasu suñu borom responsabilité suñu borom tabaraka wa taala la dekkee ci kaw suuf li muy doxal ci kaw suuf lépp da koy doxal ci ndigalul suñu borom tabaraka wa taala moo ko koy def loo moom lay defal mel ku la teg ci barab li ngay def moom nga koy defal loolu mooy tax du ca def loo xam ne day wuuteeg moom maanaam du yëg ne moo am souveraineté maanaam mooy yilif ci kaw suuf comme ni ñu koy waxee nag peuple bi dafa sooree maanaam peuple bi moo am siyaada maanaam mooy yilit mooy jiital ku ko neex mooy teg ko déedéet peuple bi so ñëpp jaami yàlla lañ peuple bi ñoom ñëpp ni ñu fiy tegee président bi peuple bi ñoom it noonu la leen yàlla tege ni leen tànnal leen ku ngeen ci teg mu wutu leen waaw président na ne peuple bee ma fi teg toujours mu naan peuple bee teg bu leen neexee ñu folli ma peuple bi ñoom it a xam ne yàllaa leen fi teg kon ñoom it moomuñu ne président ba wane ne moomu ma réew mi dañ ma koo dénk peuple bi ñoom it ne moomuñu réew mi dañ leen ko dénk waaye ñun dañoo jàpp ne peuple bi moom réew mi loolu la ñuy wax peuple bi moo soore moo am siyaada koo neex fal koo neex folli loi bu leen neex jàllale député ya ñu tànn ne ñoo wuutu peuple bi te dañ koy wax nga population bépp dañ ne mënuñu faa teew nañ tànn ay nit ñu leen fa wuutu ñooñee lim ne loi bu ñu jàllale ñu ne léegi peuple bi d'accord ci loolu loi ba neex na yàlla neexul yàlla seen yoon nekku ci kon dañuy jàpp ne nekk luñ fi yàlla buñ jàppoon ne yàllaa leen ci teg député yi ni nga xamee ne waruñoo wote loi bu population bi d'accord population bi waruñoo d'accord ci loi bu yàlla d'accord noonu yàllaa leen fi teg ah yàllaa fi teg population bi population bi teg ci député yi député yi teg ci président bi député yi nañuy contrôler président population bi di contrôler député yi yàlla noonu lay contrôler contrôler population bépp nag moom moo nekkat ci seen gannaaw nag bu ñu ko jàppee woon noonu waaye bi dañoo jàppee ne jotee duñu yàlla dara ñoo fi nekkal seen bopp peuple bi daal moom loi bu leen neex bu leen neexee légaliser njaalo wote loi buy buy njaalo wala góor jigéen buñ waxee ñu la loi la population bee ci d'accord kon dañoo jàpp ne ñoo moom seen bopp te yàlla mi leen fi andi moom tere loolu kon dañuy jàpp ne nekkalu fuñ ko kon moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom ne ko inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq li tahkuma bayna annas waaye bima araka déggal bima araka allah dama wàcce téere bi yow ci dëgg ngir nga atte ngir nga atte waaye li ngay atte bi caagee ni nit ñi ngay atte ñoo lay wax atte nu ci nangam de wala yow yaay atte leen ci nangam déedéet waaye bima araka allah li la yàlla wan ne la atteel nii noonu ngay atte wala takun lil xaainina xasima asaas boobu la ñuy déggee wuutu borom bi tabaraka wa taala def gim def ci kaw suuf xalifa loolu lay teg mooy ñu jàpp ne moo leen ci teg moo leen doxal loo suñu ñoo doxal lu génn programme bi mu leen jox ci seen biir kañu tànnaat pour mu wuutu leen ca doxal ga muy njiit ya ñu tànn kooka itam sañu la génn la borom bi tabaraka wa taala tëral loolu moo koy wute rek régime li ñuy tuddee régime démocratique nga xam ne dañuy jàpp ne euh, peuple bi moo yore baat bi moo soore mooy def lu ko neex am naa xilaafa gi nag ay jubluwaayam mooy xilaaf ak lislaam xilaaf ak gi boroom bi tabaraka wa taala teg doomu aadama yi ci kaw suuf mooy du xool adduna bi ci dund bii rek faas mu gàtt bii parce que dund bi ñaari faas la faas bi gën a gàtt mooy bi ñuy am fii ci adduna faas ba gën a gudd mooy ba ñuy am fële bu dee ci lislaam nag du xool face benn bi rek comme ni ko ñun adduna ñi di defee ñoom benn face bi dong la ñuy xool jàpp na itam adduna daal objectif bi mooy fexeel ba bari alal fexeel ba am daraja fexeel ba am pouvoir jàpp ne loolu dana am dara lu mu la lu mu la dolli wala lu mu la jariñ moom la borom bi naan waylun li kulli humazatin lumaza allati jamaa maalan wa addada dajale alal ji wañ rek di wàññi rek di jot say relevé compte bancaire rek relevé yi ñu la koy yónnee ngay am naa nangam am na nangam am naa nangam yaxsabu anna maalahu axlada dafa jàpp ne alalam ju bari jooju dana tax mu sax fi kalla kalla lu mu bari bari bari alal lu tax mu sax fi de la yumbadanna fi lxutama fa mu nana mujj bu bàyyiwul topp alal jooju rek ak nu mu ko mën a amee baax na donte te alal bi am na nu muy ëppee àqi doomu aadama yi nga jël bu ku ne jëloon sa àq rek affaire bi day équilibre am na lu nit ñi bareelee alal joo xam ne loolu moomu ko mënu ko liggéey àqi ñeneen la récupéré moom la jël moo tax bi ne kooku day fa muy mujj ci mbugal lay mujj waaye programme xilaafa islamiya bi moom muy wuutal gi nu yàlla teg ci kaw suuf objectif ba mooy al ahsanu amala tabaraka alladi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allati xalaqa almawta wal xayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waaye fii nag liyabluwakum ayyukum aksaru maala fii moom loolu la ñuy wut moom régime yi moom ayyukum aksaru maala ayyukum aksaru jaaha ayyuhum aksaru sultaana waaye bu dee l'islam moom li ñuy xëccoonte di ci rawante mooy al ahsan amala ku gën a rafet jëf wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun loola bu ñuy rawante ak a xëccoo foofu la ñuy rawante loolu tax boo gisee lislaam tëraliinam wuuteeg tëraliin yii fi am ci àdduna yii fi am ci àdduna matériel lañ teg ci kaw nit ci de boo déggee bu ñuy wax développé réew mi matériel la liñ développé mu réew mi mooy waroon nañoo fexe ba kenn du ñàkk loo lekk ñëpp am lu ñu lekk loolu nekk projet ñëpp am fuñ dëkk ñëpp jàng ñëpp faju ñëpp jub mën a jaamu yàlla yi leen di yàqal jaamu yàlla yépp ñu éliminé booba nit la tax a jóg waaye fekkee yow sa programme mooy defar ay pont defar ay tali yooyu rek moom mooy sa plan de développement kon dafa mel na yow matériel bi nga teg ci kaw nit ñi maanaam xayaat bi maddiya bi nga teg ci kaw alxayaat basariya bi bu dee islam nag basariya gi la jiital boobu jàpp li ñu def lépp da ko war a servir fii nag dañuy jàpp ne nit ñi ñooy servir adduna bi pour adduna bi développé boo demee ci ministère yi da ngay gis ressource humaine al masadirul basariya maa nañu amee ressource financière la ñuy amee ressource humaine maanaam li projet bi ñu bëgg a doxal ni laaj laaji alal noonu la laaji ay nit nit ñi di sacrifié ngir projet bi mën a am nit ñoo xam ne ña nga seen naaj bu tàng jër sonn lool duñ am luñ lekk waaye dax la pour réaliser ab tali mel ni tali baa leen waaw taliba leen gën ñoom ñooñu nga xam ne ñoom buñ ca dañ cay daj lu boo toog seen bakkan des ca ñoom te nit ñi gën talibe ah léegi nga gis ku kuy yalwaan wéeru ci potolamp boo xam ne la muy jàpp mel ne potolamp boobu moo gën nit maanaam ña fa samp poto bi fexewoon ba waajoo ji du fa wéeru am lu mu lekk ama fu mu dëkk normal te poto bi bañ fee am sax moo gën waaye ñoom poto bi leen gënal nit ki dañ fi samp poto bu rafet bu seer di jar ay millions benn way wéeru ci yoo xam ne amul juróomi dërëm moom mais ko kon nit lay defar wala wala mbedd yi lay defar <laughs> loolu toujours ñi ngi romb nit yi ñuy sonn di taxawaalu amuñ ca soxla mais mbedd muy romb lamp yi takku ñu ne barab sàngam nañ fa defee lamp waaye loolu ne doo romb naa fa ñuy yalwaan nañ leen jox luñ lekk nañ leen wutal dund ba dutuñu yalwaan ah loolu kon moo lay xamal ne moo tax borom ne apa xukumal jaahiliyati yëpp yéen daal xukumal jaahiliya moom ngeen di wut te àtteeg yàlla moo gën a maandu lépp kon ci gàttal daal suñu borom tabaraka wa taala dafa taral doomu aadama ci responsabilité gi mu ko responsabilité def ko xalifa ci kaw suuf mu war a doxal doxal goo xam ne dafa ko cee may liberté mu mën a def man a ba fa man saa appal yu'min wa man saa appal yakfur malayka yi amuñu lool ñoom de amuñu lool de jant beeg weer weeg amul dara lu am lool doomu adama dong nga am lool waaw borom bi dafa am asamaan su ne de itiyaa taw an aw karhan